ñoom tey duñu egsi foofu. continué nañu li nga fa bàyyi. alors euh, nga nekkoon euh, donc directrice euh, générale tey ci présentation maa ngi koy wax yaa ngi bokk coalition ànd beesal Sénégal ngeen jëm ci législative yi. Mhm. lan moo tax nga nekk député. d'accord loolu vraiment dafay baax tey su avant ma siy wax ma def mhm. un petit rappel. si ànd beesal Sénégal le pourquoi. Mhm. ma ànd ak le président Abdoulaye Sylla. tey Fatou xam nga xam nga ma man j'ai fait douze ans dans la coalition Benno Bokk Yaakaar maintenant su ma jógee ànd ak le président Abdoulaye Sylla du lenn lu dul nu avons une vision commune dañu bokk gis-gis ba pare nu partageons les mêmes valeurs temps euh, sur le plan éthique mmh. valeur euh, transparence engagement fulla fayda jom ba pare euh, lenn li nga xam ne mooy don de soi. Mhm. tey Abdoulaye Sylla ko ko xam-xam ni c'est un euh, nom bi nga xam ne mi ngi Sénégal c'est un champion économique. maanaam il euh, travaille vraiment dans le secteur privé. Mhm. di ki nga xam ne moom moom le groupe Ecotra. groupe Ecotra c'est un c'est une multinationale qui regroupe plusieurs entreprises bi nga xam ne tey au partout dans le Sénégal au plan nationale mi ngi liggéey liggéey bu mu mucc ayib tey euh, Abdoulaye Sylla mën naa wax ku ko xam tamit da nga koy xam tamit si euh, nit bu bu bu bi nga xam ne dafay euh, intervenir beaucoup plus. Mhm. dans le social. tey ba ñu ñëwee ñu toog ñu waxtaan ma gis ne ma nag moom bokk na ñu gis-gis bokk nañu fu ñu jëm te am na taxawaay bi nga xam ne si biir Sénégal kenn du toog ba joxoñ ko ba ni ko cam am na taxawaay bi nga xam ne ci Sénégal tey su toogee ne ñun am nañu mun nañu ànd dem avec notre programme pour cette nouvelle législature mm-hmm. ma gis ci sama bopp gis ni carrément lii nii suñ ko defee pour améliorer les conditions de vie de nos la lii suñ ko defee pour maanaam gën a euh, càggat li nga xam ni tey moo fi nekkoon te du lu baax mm. ñu seggi ko indi leneen li nga xam ne lu bees la loolu ba ma toogee dama si gis sama bopp ne ah kii mën naa ànd ak moom liggéey moo tax tey ma ñëw si biir coalition ànd beesal Sénégal. Mm. pour ànd ak moom liggéey vraiment pour mën a suqali Sénégal. Mm. beneen bi mooy sunu nouvelle si nouvelle législature bi d' accord na nga ni lan mooy suñu taxawaay. lu tax nga bëgg a nekk député tax ma bëgg a nekk député parce que Fatou toll nañu fenn fi nga xam ne si biir réew mi je pense que suñu wax bi député yow da ngay dem nga porté la voix des Sénégalais. Mm-hmm. te tey foog naa ne sooy porté euh, baatu sénégalais ci hémicycle bi da nga war a am taxawaay bi nga war a taxawee. Mm-hmm. danga war a nekk euh, nit ba nga xam ne tey soo fa taxawee di nga am euh, comme ànd bu bees Sénégal ni ñu ko waxee maanaam taxawaay bu bees jikko yu bees. Mm-hmm. ci anam bu bees parce que duñ ne dara baaxul mais lu bari dañ ko war a defaraat. tey taxawaay bi nekk na si suñu ñëwee ñu mën a xool comment renforcer. Mm-hmm. comment vraiment réformer l'éducation parce que tey foog nañu jeunes yi war nañu mën a toog tey jàppale leen euh, capacité leen ba nga xam ne si wàllum euh, entrepreneuriat naka lañuy def ba développer tey seen euh, cette fibre. Mm-hmm. bi nga xam ne moo nekk si ñoom parce xale yi koo gis. ñu si bëri d' accord soo xoolee Sénégal y' a des emplois directs et des emplois indirects. Mm. emplois indirects ñi ñoo koy def mais ñi nga xam ne ñoo nekk si mbedd bi di jaay loolu c' toujours l' entrepreneuriat comment renforcer vraiment tout cela jàppale leen ba nga xam ne ñoom seen bopp ji day am accès. Mm. vraiment euh, à l' euh, financière économique ba mën a demal seen bopp du leneen lu dul tamit xool euh, comment tey ak suñu ñëwee ak ànd base bi sa ba dem si biir assemblée. Mm. toog xool comment plutôt. renforcer le secteur de la santé maanaam une santé pour tous tey Fatou Sénégal war nañu toll fenn fi nga xam ne nit mën na feebar dem urgence. su demee urgence le temps ngay téye carte d'identité ne ko indil payoor bi ñu dox la laal ñu jël la si boppam. xool la faj la sauver la. Mhm. ba après doo ko jël facture bi yónnee ko say say sa sa sa famille. donc pour man une santé pour tous boobu dëgg la ñu ngi si mais war nañ ko gën a renforcer. Mhm. parce que tey dañuy waxee à l'hémicycle dem toog fa Fatou pour xool tamit comment renforcer vraiment tey la transparence euh, suñuy wax tey si wàllum koom bi parce que tey war nañu toog réfléchir. sur le comment tey renforcer cette assemblée nationale ba nga xam ne tel sorte que ñun dinañ mën a am benn pouvoir bi nga xam ne lépp li nga xam ne mooy nekk projet public des chantiers publics des des gros marchés publics ñu xool ba nga xam ne tey coow yi si am ñun contrôle bi ñu am ko ba nga xam ne périodiquement régulièrement dinañ mën a rendre compte les populations yi ñu fa teg ne leen ah tel projet tel chantier des